moom ñu koy waajal ci 2A TV. incha allah kii di Ousmane Sonko moom annoncé na ne 3. Mm-hmm. ginnaaw bi am démb am na yeneen ñaar yooyu nga xamante ne moo nar moo nar am ci ay meeting maanaam ndaje yu am solo loolu nag je pense que seetaan ngeen ko en direct ci 2A euh, TV ak. dispositif bi nga xamante ne amoon nañ ko démb foofu noonu ca Kër Mbassar waaye ca gannaaw gi itam la ca tax xew gis ngeen ko. Mhm. Euh, bés ba le jour ci loolu la ñëwandi xëy ñoo wax euh, kàddu yi nga xamante moom Ousmane Sonko ko ba mu fa doon amal mu ne ce sera Macky taxaw na temm euh, ci mbir moom nga xamante mooy mbiru Sweet Beauty moom daanaka gas yi pare na ci te moom bind na ba pare waaye bind testament ndax ëpp tam testament testament moom daana soo ko bindee mooy. xëy na eh, xare goo xamante ne ah lépp lépp daal xaj na ci moom Ousmane Sonko nee na euh, pare na ci li nga xamante moo di dossier bi te li ci des moom daanaka du ci waxati moom nag wax na ci li nga xamante ne euh, euh, waa bés yéen kaay bés ba le jour moom daan nay def ab jurisprudence jëmee ci li fi xewee woon ndax nee na jurisprudence Karim et Habré ndax ñaari kilifa yooyu léegi kenn ki nekkoon njiitu bu Tchad ak kii di Karim Meïssa Wade nga xamante ne moo. moom moo nekkoon euh, doom moo nekk doom ci ki fi nekkoon njiité réew ak li jot a xew ci ginnaam yépp ah des na ko mën a bàyyi xel waaye itam ci ki nga xamante ne moo di Khalifa Sall euh, bi nga xamante ne woo na militant yépp ngir ñu pare ñu wàcc kon jamono jii daal Sénégal ñëpp ngi waaj gis ngeen nag mbooloo mu takku bi nga xamante ne moom moo newoon démb foofu noonu ca euh, Kër Massar benn yéenekaay yi mu di enquête yéenekaay mu ne la combat à mort daanaka nag combat boobu suñ ko waxee Ousmane ko moom moo ko wax ni ki dem ba mu jàkkaarloog ay militant foofu sa Kër Massar gis ngeen mbooloo mii nii gis na ko gis nga mbooloo mii nii nii nii nii nii nii pour yow lii ñaata personne la. yow da fi toog di ko estimer. te gis nga ñii ñii ñii nii nii nga gis nii nii nii nii nii jàppal ne ce sont des gens déterminés. am ñoo xamante ne. joxuñu leen xaalis joxuñu leen sandis. joxuñu leen tisat. waaw mais bëgg-bëgg ak ban pertinence la am nit ki cotisé plus de 333 millions. pour encore nga koy jox t-shirt wala xaalis. pour mu ñëw moo ma jaaxal. <laughs> mënul nekk loolu amul benn pertinence. Ah, fii ñi fi ñëw ñëpp dañu ñëw parce que dañu am conviction. wala dañuy partager projet bi. projet projet CSO bi man lii nii euh, en fait mënul leen ko gis parce que day xaw a ndaw ci ci bët mais soo fa demoon. ba nga xamante ne doo mën a xuus ci biir nit ñi. Mhm. daa nga xam daa nga daa nga natt mbooloo ma ma nekkoon foofu noonu ci Kër Massar euh, seen leader bi Ousmane Sonko moom itam jot naa yëkkati ay kàddu jëmee ci dossier Sweet Beauty moom la wax ne moom daanaka pare na mhm. jamono ji nag. Euh, xeex bi nga xam ne ci mu ci la jëm wax na ne président Macky Sall dina jël bakkanam wala mu jël bosam loolu tax yéen a kaay bi xew ak ñu ne ci euh, le combat à mort ñoo war a ñeneen ñi war a bu ne combat mooy itam ñi nga xamante ñoo nekk ci mairie bu Dakar est-ce xam nga ni Ahmed Aïdara ak ñi mu àndal toog nañ juróom benn weer yoo xam ne fay ñu leen na bu ñu leen falee ba léegi daanaka. te moom keroog maa ngi koy dégg waaw. d'accord c'est bon. gis nga. 6 mois sans salaire enquête yenn kaay ñëw na ci ñu ak ki nga xamante ni moo di Samba Ka malheureusement tiktoker boobu noonu doon na daloo nit ñi euh, li ci jot a xew yëpp jamono jii moo nga kaso les échos yenn kaay dafa ñëw ci des grévistes font du vandalisme sur l'autoroute ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo doon grève euh, ngir rek euh, di laajte ñi nga xamante ni moo di nguur gi jëmee ci wàllum transporteur ñu xoolaat taxawaay bi nga xamante ni ñoom lañ ko am naka naka keroog am na juróom-benn yoo xamante ni ñoom jàpp nañ leen. Euh, lii nag war a tax ba ñi nga xamante ñoo di transporteurs yi mer ba futu ñëw nag ñun itam ci euh, ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko bi wax ne j'ai déjà fait mon testament ce sera ji Ousmane Sonko dogu na ne dana ki nga xamante ne moo di président Macky Sall ngir rek euh, mu mën a am ak ak yelleefam bu baax a baax beneen yéenekaay mu di yor yor yor yor yéenekaay mais yéenekaay bi nag moom yéenekaay bi ma neex la ndax dafa ñemee dëgg. dafa mm-hmm. dafa ñemee dëgg. waaw moom nee na wax na ci ki nga xam moo di Alioune moom dafa ñaax sénégalais ñu bañ a bàyyi bàyyil mbir mi ndax nee na ce procès de affaire ak euh, Sweet Beauty peut mener vers une guerre civile mais nañ nañ ko sóoraale. yàlla nañ ko sóoraale. Mhm. <laughs> Euh, ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko dem ca méga concert bi amoon ci euh, maanaam sax concert ngeen maa ngi maa ngi jégalu ca méga meeting bi nga xamante ne moo amoon euh, foofu noonu ca Kër Massar jot naa yëkkati ay kàddu ne. Mhm. je suis au combat contre Macky Sall jamono ji moom. Euh, moom euh, daanaka waajal na boppam bu baax a baax te dina jàmmaarloo ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi di président Macky Sall 24 heures moom li mu jot xeer rek moo di kàddu yi nga xamante ni moom Ousmane Sonko jot na koo yëkkati ni ki démb ca meeting ba amoon na ca euh, Kër Massar mu ne j'ai déjà fait mon testament personne ne va se jouer de nous et nous ou nous imposer la force le terminus est atteint. moom nag daanaka kàddu yooyu la jot yëkkati ni ki démb gannaaw bi nga xamante ne moo ngi doo jaaxaloo ak ay militant yu bari te kàddu militi yëkkati nag moom jot naa xam ne itam ndax dana dem ca procès ba waaw am déet nee na su su ca yegg yeggee daana daana wax la euh, ban ndogal lay daal di euh, jël beneen yéeni mu di euh, critique moom dafa ñëw ne Sonko pris dans les filets de Mame <laughs> ah je pense que lii moom Pa Assane. Hmm? Pa Assane tey tey Mame Mbaye Niang a a journée vraiment. Hmm? Mame Mbaye mi nga xamante ne moom euh, dafa porter plante kii di Ousmane soo te euh, ñu war a teew ca kanamu juge bi le 2 euh, février bi ñu jëm moom jot naa wax ne ne ces tentatives d' actes insurrectionnels seront encore étouffées. Ousmane Sonko nee na nous allons nous allons nous battre maanaam daanañu xeex ñu def lépp nga xamante ne euh, yoon may na leen ko rek ngir ñu bañ leen a euh, néewal doole. beneen yéen kaay mu di l'indépendant moom dafa ñëw ñun ci kàddu yi nga xamante ne Ousmane Sonko jot na ko yëkkati euh, ni ki démb ca Kër Massar daanaka ñoom ñëpp mboolem yéen kaay ci kàddu yi nga xamante ne Ousmane Sonko yëkkati ko ci lañ ñëw waaye nag li ci gën a am solo mooy lii Ousmane Sonko wax ne j'ai déjà waxee ci olof Euh, mooy mooy. Euh, miiras naa sama bopp. voilà c'est ça. miiras naa def na kayitu loolu war na dénkaane na. dénkaane mooy miiras dénkaane na bopp dénkaane na boppam dénkaane na ay mhm. ay Ousmane Ousmane loo nar. xaar ma jàll ci euh, yow c'est pas moom lu mu nar. la la ah, loolu pare nga pour joxe sa bakkan ah. l'info de ci la ñëw ak ñun ne déferlante Pastef à Kër Massar Sonko mobilise et radicalise taxawaay bi nga xamante ne Ousmane ko amee na ko ah jamono ji euh, foofu euh, nga xamante ne moo di ca Kër Massar ginnaaw meeting bi nga xamante ne moom la organisé démb ngir rek euh, delloo njukkal seen seen ndem si yàlla militante boobu nga xamante ne moo gaañu woon mu di Mariama Sagna gis ngeen mobilisation forte mobilisation bi nga xamante ne moo te woon foofu ci Kër Massar ci la. Euh, l'info yéen a kaay ñëw ñun ak kàddu yi nga xamante ne moom Ousmane Sonko yëkkati ne ko ne on va faire face à Macky s'il compte sur la police e la et la gendarmerie qu'il se prépare à tous à tuer tous les Sénégalais. Mm-hmm. Ah. foofu de yàlla bu fa àgg vraiment. beneen yéen a kaay mu di l'observateur moom dafa ñëw ñun ba léegi ci eh, ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko mu ne le show combat de survie ndax jamono ji nag eh, l'observateur jamono jamono xeex la te Ousmane Sonko eh, niki démb moom la mu wax ca Kër Massar mooy que ne pare na rek def na lépp li nga xamante ne ay wàccaay la ngir rek xeex ak ki nga xamante ne moo di président Macky Sall waaye ñëw naa ñun ci itam ci li nga xamante ne moo moo xew ca Ndor Signa Ndor Signa ak. kii yi nga xamante ne incursion yi nga xamante ne l'armée bu Sénégal ñoo ngi koy amal foofu noonu ci sud du pays beneen yéenekaay yi mu di Walf Quotidien moom dafa ñëw ñun ba léegi ci ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ak kàddu yi mu yëkkati naka démb nag ginnaaw euh, ba mu jàkkaarloog ak ay ak mbooloo mu takku mi nga xamante moo nekk moo nekkoon foofu noonu ca Kër Massa mu ne Macky nous tuera ou nous le tuerons loolu moom du ma ci commentaire <laughs> beneen yéenekaay cent L238 couteau sous la gorge. de Sonko l'article li ci yéenekaay bi bëgg a wax mooy maanaam euh, ordonnance de a du juge d'instruction devant la chambre criminelle li nga xamante ni mooy yot Ousmane Sonko moom mi lay Ousmane Sonko tax ni ki démb euh, ba mu nekk ci Kër Massar nee na moom euh, comme ni ko waxee rek ci wolof maanaam miiraat na boppam ba pare daanaka. Mhm. donc jamono jii dinaa dana. ñii nee nañ la loolu mooy ndénkaane. ndénkaane testament mooy ndénkaane. ndénkaane mhm. donc Ousmane Sonko def na ndénkaaneem ba pare te euh, yaakaar na loolu ci askan wi ne lépp li nga xamante ne euh, daañu nañu ko def ci wàllum xeex ngir rek euh, jàmmaarloo nguur gi fi nekk moom daana ko def waaye itam ki nga xamante ne moo di Mame Mbaye Niang laata Ousmane Sonko sax di li nga xamante ni moo di meetingam boobu moom ma Mame Mbaye Niang démb ma nga woon ca je pense bien affaire fi nu mu tudd waaye benn hôtel benn kii benn hôtel bu nekk de la place dañ fa amal conférence de presse moom mun na ca je ferai le plaisir de saisir tous ces biens jusqu'à la une petite cuillère maanaam bés bu ko yàlla bés bu yàlla defee moom moom mii di euh, di Mame Mbaye Niang ci euh, plainte bi nga xamante moom la déposé ci kanamu euh, yoon ak ñi nga xam ne yoon yoon ak yoon ba ñu jox ko ndam ne ndàmpaay la nga xam ne moom laaj Ousmane Sonko su ko yorul nee na daana lépp li nga xamante ne Ousmane Sonko amee na ko ci wàllum am-am dana ko dana ko jël. dana ko jël te kuddu sax du ko fa ba. waaw ah, ah, waaw kuddu xanaa au sax ñuy saxalee xale yi sax nga war ko a bàyyi Mame Mbaye su nekkee da nga am ndam tribune yenn kaay moom do <laughs> xale yi dooy bàyyi xale yi ñu mën njëkkanoo les magistrats et d'être d'être jugés loolu de kaay bëgg a bind ne euh, dopé par une foule euh, enfurie à Kër Massar Sonko menace les magistrats refuse d'être jugé. maa ah, ko ñaan jërëjëf melal li may def revue ma ima fekk titraay bi doo ci wax. Mbaye dama may sekk ngir yàlla sekk. est-ce que ñun ak ñii ñoo bokk liñ seetaan démb. j'ai compris lan la wax titre mu ne la. Sonko menace les magistrats et refuse d'être jugé. ah bon discernement ak tolluwaay ak interprétation. tout est dans l'intention des uns et des autres. tout est dans l'intention des uns et des autres. tout est dans l'intention des uns et des autres. lépp la nga xew. Mhm. la ko tax a jóg a laayoo la ne la ko tax a jóg ñu demee seen la ko tax a jóg daanu comprendre chacun est libre nag de faire sa xaay loolu moom wax dëgg yàlla journal bu nekk ak sa gis-gis. Mhm. il faut l'accepter ainsi on respectera tout le monde mais une chose est certaine la rue là. Mhm. la rue elle est là la rue a parlé hier. d'accord ku dégg baax na ku dégg baax na dafa am benn affaire bu am Jérôme. Mhm. corps. ak ñi ñoo seetaan kilifa yi ñoo seetaan xam nga luy seen problème. lan. par exemple Ousmane Sonko a fait presque toutes les unes aujourd'hui plus ou moins. Mhm. Ah, c'est-à-dire que on l'a pas nekk on l'a pas bien exploité dans le sens bi ñu bi ñu doon escompté quoi c'est-à-dire que parce que discours pour discours. Mhm. tey nii man mën naa titrer journal ne. Ousmane Sonko refuse l'injustice mun naa ko wax parce que dans le process du début à maintenant cette histoire de viol c'est de la fumisterie hmm? c'est mesquin c'est dégueulasse c'est chien gars Sénégal la ñu nekk ñun ñëpp début histoire bi Adji Sarr ba maintenant ku waxal yàlla ku ko waxul ci biir néeg wax nga ko ci biti ay fen la yëfi naafeq la ngeen baalu terme bi ala yëfi dëmm dégg nga si àdduna sunu borom a fi ne on aura beau être courtois et gentil mais yàlla dëgg ka mu neex ka mu neexul we don't care about feregewu ñeente sunu borom rek la noo ragal rek la nu tiit bu fekkee daf leen jaral taal dëkk bi jéem leen yéen nguur gi lanoo noo bu dee da ngeen ne Ousmane Sonko par force jàpp tëj wala taal dëkk bi taal leen ngeen xool barke salaatul faatiha du ngeen ko dettal billaahi wallaahi talaahi ba nga neexee na ngeen xool nu naan sa goos laa een xam billaahi wallaahi talaahi def leen ko du ngeen ko nettali xam nga lu ngeen ko nettali hmm. sanu borom moo dul taal réew mi ci lu dul lu dëgg wax ak dëgg sunu borom moo dul setaan ñuy taal Sénégal ci lu dul dëgg mun naa comprendre ku def mu ne dooy kenn ma jàpp ñu jàpp ko am problème. mais li feeñ yëpp du début à maintenant on vous donne un certificat médical yéen a dem jëli seen docteur yéen a ko woo yéen ko jëli li jënti ka waa ji ne leen lii amut ca section des recherches la wax ji jeex moo tax ma ne la l'Afrique ak suñu yenn dirigeants yi dañu am problème mu dangay ngay toog ak juge sax juge muy wax ak ni téléphone ne non non non euh, envoyez-moi son dossier on va le mettre au ñuuf là je vais le mettre au euh, dinaa ko yar. vous pensez que c'est sérieux vous pensez que réewu Sénégal dina avancer noonu yow nga nekk juge ku la neex tëj ku la neex bàyyi sa bis a ngi ñëw bis dina ñëw dangay tëdd si lal ñu juge la yow wallahi asim ka mu neex ak ka mu neexul bis dina ñëw yow juge magistrat yow mi yore justice ci Sénégal war a doxal dëgg nga ne doo doxal dëgg parce que président moo la nommé. te yàlla nommé président seetal suñu borom nga ne da def li nga bëgg yow li waa ji bëgg ngay def ñu tànn la way tëj ko nga ne da koy tëj ñaanal fekk tëj ba koo xam ni décidé woo luy minute bi ñëw lii xew bëreet plafond wadd mar day taal décidé woo ko nga ne dangay ngay plan pour éliminer ci jamono daan na am. les temps ont changé jamono bi nga xam ne ñu ngi doon yàq di éliminer di di des leaders di leen def naka su dul noonu ci jamono les populations n'avaient pas compris parce que population yi amuñu woon information RFI moo leen dox jox info wala RTS ORTS benn chaîne de télé ngay am ci dëkk bi et cetera le monde a évolué léegi da ngay toog sa biir kër canal di la fayeeku 40 000 37 000 20 000. nga xëy bis yàlla indi internet internet à haut débit xulin yàlla ne la IPTV am na dix neuf mille chaînes. Mm-hmm. ngay jàpp jàpp jàpp ba sonn ku xoolut loolu comprendre loolu ni àdduna bi dafa avancé nous sommes au même degré d' information xanaa xamoon ne nit ñi bu ñoo wax way président bi c' est le mieux informé au Sénégal le président peut ne pas être informé sur des choses du yàlla. mënut a jàpp lépp mënut a xam lépp am na loo xam day am mu daan ne ah bon koo xam ne bu dara xew nga ne ah bon doo doo yàlla. Mm-hmm. nañ waxante dëgg bu dara xewee nga ne ah bon doo yàlla kon am na lu lay rëcc loolu lay rëcc nag contrôlé woo mm-hmm. moo tax faw ngeen dellu si sunu borom yéen ñi ne ci nguur gi il faut mu wax leen dëgg dellu leen si sunu borom xam ne seen bis day ñëw ngeen jóge ci nguur gi mu neex leen mu naqari leen yàlla moo ko yore. Mhm. yàlla nag moo leen binduloo ab constitution ngeen réguler que rédiger que leeral que ngeen di ñëw léegi pour loolu bu ngeen ko respecter donc alpha ou bêta on va foutre le bordel jaxase dëkk bi yéen yéen a bëgg a taal dëkk bi. Mhm. parce que bu jaxasoowee ngeen am li ngeen bëgg la vous êtes tranquille y aura plus de rapport y aura plus de compte à rendre y plus de reddition de compte y plus rien ngeen taal Sénégal après tas jël seen ay dem. barke salaatul faatee du ngeen ko fi def fii réewub jàmm la jàmm fee dox jàmm fee am du ngeen fi faagaagal kenn du ngeen fi tëj kenn si lu dul yoon. Mhm. waaye moo jaay. merci. maa mbay ñaar kilifa yi. na rafet na rafet na mhm. bu defee dafa war a wuy yoon yoon teg ko daan bu fi dee dafa def hmm. mais li feeñ ñëpp tout le process. ngeen di joxe heureusement bi nga xamante ni bi nga xamee ni bi nga xamee ni du benn chaîne fi am ak benn rajo bu doon lool yi bu doon dans les années quatre-vingt kenn waxtu wax Ousmane Sonko. Mm-hmm, yàgg na. te nag wax nii yàlla nu tiim de man mii di wax. Mm-hmm. ànduma ak Sonko de dama kaa wax fii mu leer principe la noo waxee bu Ousmane Sonko nekkee ci principe bi si lu nu yaakaar ne moo la dëgg. personne n'a le monopole de la vérité. Mhm. si jàpp ni moo la dëgg laa la wax bu leen neexee ngeen ñu ne soog koo far ndox xanaa xamoon ni démb toog naa ba mu yàgg ma ne waaye dëgg neex waaye lii wa man waroon naa dem ca meeting ba waay dem fa jël parole waay ba ma neexee ba ma ko sentir nag utoog daal ne man sax. carte Pastef la maa wuti ba ma neexee am naa ci mais Pansane Pansane dëgg boo koy wax mooy dañuy dañuy génn ci sa gémmiñ avec aisance. Nabucor xulil expression spatiale xooleel hmm. xooleel maa ngay toog fii la wax man damaa toj fenn damaa doon leen hmm, kenn lu mu bàyyi Assane ma ndaw bi waaye xooleel xooleel dëgg boo kaa wax xooleel xooleel c'est hmm. maa ngi laa xool dëgg boo kaa wax maa ko yëgal de dafaa neex Jérôme baal gis nga nag kilifa dina taxaw sa kanam ngay wax dëgg mu xool la bët mer doo ko sax gis kilifa yi ñu ngi yor seetaan yéen a gën a xam li wax dëgg la li ngeen day def Ousmane Sonko du dëgg du yoon parce que président Sall bi ñu la ko bëggee def ñun ñii danoo taxaw défendre la mais pourquoi nom de Dieu vous voulez le faire ou bien c'est la France qui vous dit non ce gars il est question si c'est cela dites-le nous da ngeen di wax nañu non France moo bëggul waa ji wax leen mu ko bu ko defee ñun ñu xam ne ah d' accord France moo bëgg mu leer ñu ñu am jàmm. France ci jamono jii ñu nekk. ci waa ji la ñuy ndékki añ ci reer ji. ak ñoo mën a wax ci Ousmane Sonko. xaw ma da nga fa bëgg a. fekk Jérôme boo ma ko waxatee bii laay boo ma ko waxatee daa dégg. bii laay boo ma ko waxatee nee na waxal nga ne. waxal. xam naa ne gaa yi moom dañ lay sëngile yow moom. Jérôme li gars li gars yi doon def xam nga dañoo filtré Guy Marius Sagna. Jérôme mhm. Jérôme sa tour naan gars yi dañ ko filtré. Jérôme Jérôme Jérôme Jérôme. Jérôme Jérôme naam. aywa nga wax nga ne gars yi duñ ma may visa. ah Jérôme ndax daa ko wutam déet. Jérôme. Mhm. I don't given ay déet déet. déet jàpp ci jàpp ci jàpp ci jàpp jàpp ci jàpp jàpp ci. foofu foofu moom dama la ko ñaan jàpp ci naa la kenn tooñu la man mii maa maa la tooñ man mi gis titraay. xam ni mën naa ko yëngal à tout moment ma yëngal ko. déet waay waaw ayca nañ na suuf na nooy. na nopp nepp ba mel ni xaar. li ndongo la waxoon nan nooyee nooy ba mel ni xaal. waaw waaw waaye xam naa ne diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall daanaka moom du nooy. boobu moom du góos xam naa ko ndax moom Ousmane Sonko nee na moom pare na ci xeex bi day def bind na testament ba pare en gros ndinkaane ah waaw waaye ca beneen wàll itam daanaka ñi fare ci APR ak Benno Bokk Yaakaar daanaka jamono ji nag moom ñoo ngi yuuxoo fu nekk ne pour nga xam ne moo di président Macky Sall ah, ci atum 2024 moom la ñuy investir mu nekk seen candidat waaye de ah, ndax moom daanaka daanaka nekkam déet taxawal nga ne eh, investiture tout azimut de Macky Sall ñoo di laas léegi Mame Mbaye ay waay déet waay ma mbay kilifa bi non dañuy waxtaan. Euh, dañuy rek tey moom moom la euh, euh, kilifa bi ak kilifa yi ñoo seetaan ñu laat leen rek àqulaay taala ak suñu borom parce que damay dégg ñu naan waaw réew mi duñ ko bàyyee xam nga yi fi ne ci ressource avec tout ce a duñ ko bàyyee des irresponsables kan mooy irresponsable kan moo gën a nekk irresponsable kii gère dëkk en complicité di lool askanam. ak kii wax ne loolu du dëgg ku gën a nekk irresponsable au delà damay dégg benn discours xam nga mooy ban te yéen Ousmane Sonko doole bu mu amutoon yéen a ko ko jox. Mm-hmm. yéen a coupé courant bi dafa mel ni du ngeen réfléchir coupé courant bi wala boog bu ngeen ko coupé wul tombé a ay gaaf wante bu courant bi coupé yéen permettre ngeen Ousmane Sonko wan tubaab bi lu mu gisutoon xam nga mooy lan concert de téléphone. luminosité mbayante woon ma ka concert de téléphone mu mel ni foofu dafa am ay làmp mu leer nañ loolu manque de talent la de votre part ce régime là vous n'avez pas de talent vous n'avez pas de génie regardez cette image là vous manquez de sens de séduction groupe Sénégal c'est pas comme ça qu'on mène un combat regardez cela vous l'avez servi vous lui avez servi le plat bien assaisonné te palaatab ganaar la ah, en tout cas riis na de riis na moom xam naa ni moom. palaatab ganaar la ci mu commencé woo ay mbokk. te dafa am entrée ah. ak mbote légumes yëpp ngi ci. mbote mbote. kulli. mbote wuñ laq. betterave. navet. pomme de terre. carotte chou. tout est dedans olive. <laughs> concombre y tout ans, vous lui avez servi ce panel-là. Un super mets. yéena ko togg na man xamoon ni mën ngeen togg li voilà ce que vous avez servi à Sonko. Mhm. par manque de talent et parce que nit soo demul ak sago da mer mer moo leen jural lii il faut bloquer le truc ngeen yàlla bu doolelee nit doo ko xeex bu fekkee daf laa metti ba metti la fàtte ka. Mhm. boo ko fàttee dégg jàmm. moment bii Ousmane Sonko di dem ay affaire am yéen teg leen seen attaaya dox leen si leneen lijjanti bi ngeen kaal lijjanti yéen a ko jox doole bi waaye léegi nag jox ngeen ko doole na ngeen ne da mbir la ko sos ak na mu sosoo yàqu ko de attention attention. Hmm. attention bàyyi leen xel borom xam na lii yéen ngeen taxaw ne président Macky sàll bi warut a bokk. non day bokk ki war a bokk ngeen ne ko doo bokk waaye yéen yéen yéen ah baat dañ leen a yónni si ñun ah, jërëjëf ah, Seck en ah, balaa ngeen ba yëg ngeen ne genre courant yokk na bu baax. ñu ngi koy yëg ñu dañuy jënd courant comme ñëpp. xam naa ne courant dèjà bi dama xam naa moom euh, facture procès ba nar a ñëw bi ah bi boo direction bi ay ngeen ngeen waajal de ndax courant yokk na de. Mhm. te loo ci xamul tranche sociale bi rek lañ ci épargné épargné xam nga ñun moom mun nañ ñoo boo boole. est-ce que bokk nga ci tranche bi. ba ñun xay bokkuñu ci yaa gën a yow moom jarul sax wax. est-ce que xam nga nan la ñuy xoolee tranche sociale bi. Ah, mooy cons ci consommation. c'est ça la question. ci consommation bi. bu ñu koy xool ci consommation. Mhm. mës ngaa gis kër gu xëy suba ba ngoon làmp tàkku fa. Ah, euh, amul. Ah, alors nañ dem. Euh, le réveil. ñu ko doon laaj di dikkaat na bu baax ak doole sax. le ñoom dama ko namoon sax. waaw xaaral ma xaaral ma dégg ñu ngir gën ko ngeen gën koo mën a gis. le réveil moom dafa ñëw ci hausse des prix de l' électricité et du transport ñu ne le gouvernement d'Amadou Ba affaibli par ses promesses sans lendemain c' est tellement réel des promesses sans lendemain moo fi bari. moo fi bari Ousmane Sonko moom niki démb wax na ci Kër Massar ne jamono jii nii soit je meurs soit Macky meurt maanaam pare na dana xeex. Mm-hmm. te daana jaay bakkanam beneen yéene kaay mu di la soleil moom nag ca Kaffrine la dem foofu la fa xewoon euh, moo di onzième édition du festival national des arts et culture FESNAC foofu nag ki nga xamante ne moo di ministre Abdoulaye Seydou Sow nekk aussi euh, li nga xam moo di maire de Kaffrine daanaka moo jiite boobulee ndaje ànd ak kii ministre de la culture Aliou Sow ñoo nga fa woon ñu ne Kaffrine capitale culturelle du Sénégal jusqu'au 28 janvier euh, la capitale du Ndoukoumane sera euh, le lieu d'expression de la richesse artistique du Sénégal donc loolu ca Kaffrine la amee waaye itam li nga xam moo di l'état bi nga xam état Sénégal nga xam ne dina génne lu toll ci fukk juróom benn fukki milliards euh, daal di koy jagle li nga xamante moo di électrification ci ah élect euh, électrification ci jamono yi nga xam ne courant bi yokku na ah di moom est-ce que du contradiction beneen yéen a kaay mu di Libération moom ñëw na <laughs> ñëw na ci présidentielle ci atum 2024 ñi nga xam ne ñoo fare ci parti Moustapha Niass di AFP jamono ji nag ñoom jàpp nañ ne kii di Alioune Sarr nekkoon ministre ci nguuru euh, président Macky Sall nga xam ne moom yàggul daal lañ ko wàccee jamono ji nag gis nañ ne ci atum 2024 war nañ koo mën a investir rek ngir mu jéem a samp na dem ci euh, seen coalition boobu di benn bokk yaakaar beneen yéen a kaay mu di Libération moom nag dafa taxaw ci lu lu doy waar je vais lire mot pour mot li nga xam ne moom la libération yooyu. Grand Yoff la agression sexuelle sur plusieurs élèves mineurs. Mhm. ku ñu wax monsieur Silva. monsieur Silva nee nañ c' est prof prédateur au cœur de bilingue <laughs> au cœur de bilingue de vie moom monsieur Silva mii dañ ne dañ ko daal di jàpp ñu ko def ñoo di euh, waa. waa police ginnaaw bi nga xamante ne ay parents yu bari dañoo siñaale ne moom mi lay di monsieur euh, de monsieur Silva ah am na ay dafa daal kii daal ay élèves yi doon def sixième daal ay maanaam ay xale tout tànk daal ñoo la doon def naka sudu noonu ñu ne ñi nga xamante ne waa sécurité urbaine ah ginnaaw bi nga xam moom la ñu lay signaler ah. sécurité urbaine waaw ñoom euh, euh, ñoo ko jàpp euh, ki nga xamante ni mooy juge sixième cabinet moom moo nar a moo nar a kii ci ay yëfam ñu ne en plein cours de maths PC il dessinait des pénis. déedéet ngeen baal ma du maa ko wax de journal bee ko bind mu ngi nii su nekk mën nga ma ko mën nga mën nga mën nga ma koo bind. il dessiné maanaam danaan dessiné ay awra. bu góor loolu bu jigéen loolu lépp ngir xiir xale bi voilà di leen won it ay film yoo xamante ne film yu baaxul la. c'est un malade ah kii moo taxit de daal di soo xamoon ay waay laa xam soo xamoon la ci ndungu sin di très malade. beneen yéen kaay mu di lii quotidien moom dafa ñëw ñu ci lancement des travaux ci euh, axe bi nga xamante ne mooy axe bu Aérelao euh, Yerelao Lac Bar ak fi nga xam ne moo di Linguère ki nga xamante ne moo di maire ba fa di Mountaga Sy nekk jamono ji Euh, DG bu port autonome bu Dakar moo ko doon def euh, ni ki euh, keroog ñu ne trent 36 milliards maanaam fanweer ak juróom benn milliards la ñuy daal di def ngir rek désenclaver bi nga xam li île bi nga xamante ne moom la ñax wax île à benn beneen yéen mu di réew mi quotidien ki nga xamante ne moo di professeur Iba bari Camara nekk jamono ji ca UCAD moom nee na pourquoi il faut tenir la procès Ousmane Sonko Adji Sarr à huis clos vraiment loolu man nag nekk na loo xamante ne man rafetlu naa ko kàddu yu mel nii moom ay procès à public moom vraiment. waaw pourquoi vouloir médiatiser le procès. yàq der loolu sama jugement personnel la beneen ñi gaay hmm, damaa laaj nga tontu rek da nga am fula. waaw <laughs> rejet de la requête parlementaire interpellant le gouvernement sur les euh, sur le fond Covid 19 les sept sages à la barre. lii nag moom ginnaaw bi nga xamante ne ñaar ñii di euh, Guy Marius Sagna ak euh, Mimi Touré ñoom dañoo demoon rek ci ñi nga xamante ne. ñoo yore cour suprême ngir rek ñu xool euh, fond fond force Covid yi nan la nga xam ne danañ ko jëfandikoo ak itam enquête ba ca war ah, ñu mën koo def euh, loolu lépp nag ñi nga xamante ne ñooy sept sages rek ñoom ñoo ngi xaarandi ba léegi euh, li nga xamante ne moo di seen xalaat ginnaaw bi nga xamante ne rejet parlementaire bi daal dina ci am foofu noonu ca assemblée nationale Ngouda Mboup nekk enseignant chercheur jëm moom li mu jot a yëkkati ne le conseil constitutionnel ne doit pas regarder l'obligation de réguler l'activité des pouvoirs publics, le dialogue entre les institutions. yi nekkat bi ñëw naa ñun ci taxawaay bi nga xamante ne Ousmane Sonko am na ko niki démb foofu noonu ci Kër Massar ak kàddu yi nga xamante jot na ko yëkkati nag jamono ji moom waajal na ah, boppam te daan xeex ki nga xamante ne moo di président Macky Sall Vox Populi ci kàddu yi Ousmane Sonko la des na ba léegi mu ne terminus soit Macky nous tue ou ou lan en soit Macky nous tue soit nous soit voilà soit soit soit am na à côté ku wax lan. lu mu wax moom. moom nee na si Sonko refuse de comparaître il sera traqué cueilli et jugé par force. d'accord ça que il est déjà condamné. Uh-huh. si léegi waa xam nga xam nga xulil. Uh-huh. dañu koy wax sunu kilifa yi suñu nguur gi ñi ne ci nguur gi. Uh-huh. yéen histoire u gis ngeen le nombre de ministres de députés de de personnes adeptes de ce régime là ñi ci wax ñëpp c'est-à-dire que quel est l'intérêt yéen ñëpp mu intéressé leen à ce point mhm. parce que c'est un adversaire politique parce que il doit pas être candidat parce que il doit pas être là mhm. parce que tout sauf lui mais le problème c'est que yàlla dafa am benn question parce que dans cette histoire là bu ñuy dégg waa Pastef fii di wax di prendre parti ñoom dañu bokk ci parti Ousmane Sonko di seen leader histoire bi entre Adji Sarr ak Ousmane Sonko la mais waa APR yi nga xam ne dañuy jël parti Adji Sarr moom Adji lam la ci ñoom. Ah, c'est dommage. Mm. c'est très dommage ci benn yéenekaay daanaka moom c'est très dommage. ci ci ci li ma benn waay waxoon rek naan ma affaire mbiri moom. mbiri léegi supposons procès bi dafay am. Mm-hmm. bokk naa ci ne du am man dama bokk ci ñi gëm ne du am réew moom du ngeen ko taal bu soobee yàlla incha allah xulil lu ma gëm la mais supposons mu am. waa léegi yéen mbooloo mii yëpp ngeen gis démb ci meeting ba ngeen ne leen du ñu dem ca procès ba procès public ñii ñëpp ne dañuy dem ngeen ne non non on boycotte la ville on ferme tout. loo tax ma ne procès may ma ma wax am. baal ma rek mm. dañuy waxtaan gis nga réew. bàyyi si bokkee day wax say xalaat ka nangoo ka nanguwul ka bëgg ka bëggul ka mu neex ka mu neexul sanu borom rek la nu gëm moom la nu yaakaar te moom ci moom kese la noo wakkiirlu dañ ne procès bi day am suba xale yi ndiiraan Ousmane Sonko ne dañuy dem ca procès ba damay laaj nguuru Sénégal yéen lan ngeen di def boobaa. c'est le nga lu nar a jur coow nag. da ngeen naan kenn du fi taxaw ngeen barricade dëkk bi. waaw bu ngeen ne xale yi du ngeen fi taxaw xale yi dem taxaw feneen nag nu ngeen di def wax dëgg bu ngeen ne xale yi seen projet bi projet bi seen yoon new ci dégagé comme noonu la wax dégagé foutez le camp xale yi dem feneen feneen foofu fana léegi ngeen fekk leen feneen foofu projet bi moom day tas. seet leen li ngeen dee def du yàlla du ngeen yonent yor armée yor pouvoir discrétionnaire de signature rek ngeen ne yéen a moom réew mi. Hmm. seet leen yàlla. yàlla ñu yàlla may fekk ak tal. muccal ñu muccal Sénégal ak Sénégalais yi seytaan sore fi yàlla na fi seytaan sore. yàlla na fi seytaan sore. yàlla na fi seytaan sore. yàlla na fi seytaan sore. yàlla na fi seytaan sore. amiin yàlla na fi seytaan sore. président Macky tout ce qui se passera dans ce pays vous serez l'unique responsable le seul et unique responsable est-ce que nguur jar na président est-ce que toog ci nguur gi pour lan défendre les intérêts de qui. en tout cas li ma wax ci procès public. da nga moom moom soxna sos da nga ko yëkkati di laaj procès public moom dafa dafa xamul dafa xamul lu nekk ci procès public. Mhm. non xamuñu ko dañ dañ koo wax nii rek waaye xamuñu li nekk ci euh, ci pose public comme ni ko Paa Assane waxee mbooloo mbooloo mi nga xam ne presque euh, ci ay xayma mun na ëpp quarante wala trente mille personnes ñoom suñu nee leen di daan jëmale tribunal nu muy demee donc il faut que les gens bàyyi xel seen xel la ñuy foowee waaye. ah instant sedd naa sax ndax li Paa Assane wax lépp instant yii maa ngi nii daanaka sax sama moral yàqu na waaye nag dañuy dem ci li xam mooy làmb ji. daanaka jamono ji nag làmb làmb yënguwaat na de. Mhm. waaw suñu làmb mu def na constat boobu mu ne la lutte retrouve ses lustre datant maanaam li fi jotoon xew ci ay jamono jamono bi Balla Gaye di daan Yékini. jamono soo lustre daantam. waaw son lustre d'antan plutôt ngeen baal ma jamono yi nga xam ne moom la Balla doon daan nekk nii ñoom Modou di def doom ci ci ci bi jamono ñu dafa mel ni loolu lépp commencé nañ ko gisaat ndax sponsor yaa ngi dikkaat lamb yaa ngi fees ah, mbër yaa ngi am i combat moo tax ki nga xamante ne moo di Bombardier ak Tapha Tine jamono ji nag seen komba ñoo ngi koy waajal la 12 février la na nekk te Bombardier moom daanaka ci face à face bi ñu doon amal moom nee na euh, ki nga xam ne Tapha Tine combat bii nii combat la moo ko jëlal boppam. Mm-hmm. boobu la 12 février dina eh, dina leer ki nga xamante ne moo di caatu Dawda moom moo moo moo daan ki nga xamante ni moo di eh, eh, Guinée ni ki démb ci seen combat bi doon dox waaye Ada Fass ñu ne Ada Fass ëmm Reug Reug fils de la les nominés de l'ANPS dévoilé ginnaaw bi nga xamante ñoom itam waa agence nationale de la presse sportive dañuy organiser. ay euh, ay distinction dañ koy daal di rek jagleel ñi nga xamante ne ñooy sportif yi gën a ràññeeku te naka noonu itam mbër yi ñu leen jot a bokk nañ leen ci euh, bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu tànn waaye kii de ki nga xamante ne moo di euh, moo di Zarko gis nañ ne bokkul ci nomination yooyu Liss Ndiago xam nga keroog maa ngi ko maa ngi ko doon maa ngi la ko doon wax kan laa ko doon wax. Mami nee na ko sama mbër mi day daan mu ne ma daanul sama mbër mi daan na ko jël bu rëy. ah oui la ko daan. ardo kañ duñ nga du ma seetaan lamb. laa ilaaha illallaah xale jàmm gën bi jël bu la ko daan. xam naa ne moom dana nekk top 5 pendant un an beneen beneen <laughs> beneen yéene kaay non jël bu rëy eh, jël bu rëy la ko daan. waay technique boobu bu may commencé seetaan lamb ba léegi ah jamono yi 2000 ba léegi mosuma gis. jël bu rëy suñu paree balaa ngay commencé seen kàddu nga won ma ko. liis ndax moom mos a seetaan sax man. liis. incha allah. wii sport yéen a moom ñoo ngi ñu ci qualification équipe euh, locale. Euh, fële nee na ca ca CHAN bi niki dem nag ñoom ñoo daan équipe euh, bu république démocratique du con du Congo ñett bal ci dara moo tax it yéen a kaay bi ne quart de finale en poche pour les Lions beneen Lion nag buy football jamono ji ca Sheffield United toujours boo muy daana fa jógee moo di Iliman kor jànk ji ah, moom nga xamante ni moom xeesa booy jamono ji nag ci club bii di Everton teg na ko gën lool te boo muy daañu def lépp ngir rek. rek euh, yóbbu ko foofu noonu ci seen club boobee beneen yéen kaay mu di stade xam naa ne moom la ñuy moom la ñuy tëree ñu ne le Sénégal en quart de finale 14 ans après ginnaaw bi nga xamante ni moom te CHAN ba ama euh, waaw dernier bi ñu seen dernière qualification ci euh, quart de finale u CHAN boobu léegi am na ñeenti fukki at ak ñeent ginnaaw bi ñu toog itam. ñaar fukki at fukki at ak ñeent fukki at ak ñeent maa ngi jégalu ñeent fukki at ak ñeent kañ 44 la fukki at ak ñeent ginnaaw bi nga xam ne ñoom qualifié nañ ko ci ay euh, quart de finale bi la ñu leen euh, di ndaw Pape Thiaw daal dinañ réitéré euh, exploit boobu la ñu ne Marseille inefficace devant les buts Bamba reçoit un tacle glissé de Tudor Tudor moom il dort tout temps waaye nañ ko bàyyi foofu rek bés bu yooyu fëgg caay caay nelaw daana xam daana xam lépp dëgg la waaye jamono ji nag la le phénomène le phénomène le phénomène nii est-ce que jar na wax ci moom sax ndax City lay football garaawul bàyyi ma bàyyi ko noonu rek. Hmm? waaw tournoi ah. kan ala wax ca euh, A féminin deuxième édition keroog nag Sénégal dafa wulli Mali wulli metti ay doon na ko de doon na ko euh, doon na ko de. macha allah euh, ii doon na ko te jamono ji nag ñoo ngi waajal li nga xam xamante moo di quart de finale bi ginnaaw seen jogante bi ñu war amal ni ki tey seen digganteeg waa Gambie donc nabu ak doon seetaan. lii moo fi moo fi ruusandi woon ci yéen kaay. xam naa ne tey. j'ai pas vu l'observateur. jàll na bu yàgg jàll na bu yàgg. d'accord mm. merci <laughs> bu yàgg xam naa euh, tey seen kàddu bi moom waaw. dina am solo meeting bi daan ci saf saaf. incha allah ñu bàyyi li ngeen amul démb li ngeen amul woon démb ndax des problèmes techniques tey ci lépp loo xam ne rek. voilà waxtaanee nañ ko ci fajaru ñoom ñu am ci kàddu. mën nañ jaar à seen kàddu dal di joxe seen intervention bind bi doyul. nañu woote ci seen téléphone woote ci serveur bi daal di wax li nga xamante ne ñoom. loolu la xalaat ci dëkk bi. comme ni ko paasan di defee keneen keneen di ko defee le commentaire est libre te ku nekk mën nga def sa propre analyse ku ci woote rek mën ngaa wax li nga xamante ne moom nga xalaat. on se retrouve tout à l'heure incha allah di fàttali ne mercredi nañu am gan gu mag mu di Alioune Gaye incha allah mu nekk euh, adjoint coordonnateur euh, GP Pikine. Mhm. ginnaaw bi nga xam ne ñoom ni ëllëg itam. ñoom danañ gën sumb ci yëf yi. incha allah maa ngi leen wax am na gan gu may waajal ci trois da ngeen ko xaar. man de vaar léegi laa fi tudd ñu ama dinañ la vaar. <laughs> yow moo tax man pare naa ci wax ji ay vaar moom yooyu samay rab ñemewu ko alors merci merci Jérôme. Ah, ñu ngi lay jaajëfal bu bu ma remercier lii nga yor nii lu doon. Hmm? lii nii. lii hmm. parfum la. Ah. lakkaloñ waaw ma xool ko lakkaloñ yu xeeñ neex. Ah, dañ koy maye wala dañ koy hmm? jaay. ay ay ay ay ay lakkalo ñu baax la daal. Mhm. ñu jóge ci ay maison mère ñu def ko ci seen i bouteille. créé mhm. créé seen i propre marque maanaam marque boo bëgg ci ñi nga xamante ne ay connaisseurs lañu ñoom dañu dañu dañu dañu bëgg parfum boo demee mën nga fa fekk sa référence parfum bi nga xamante ne moom nga bëgg. lan ngay liir ci ginnaaw Adventus. waaw. voilà ay parfum yu neex. ñun ñoo koy jaay euh, xam nga kan moo koy jaay. Mhm. Albayt Dimashki. c'est un jeune euh, sénégalais loolu mooy marque bi ñoom dañuy jaay lépp loo xamante ne dafa jëm ci wàllum parfum xeeñ neex te dama lay wax lu gën a neex jigéen ñi nga xamante ne ñoom xam nga ñun dañoo taamu suñu greffage yi duñu ko du xeeñ neex. Mm. am nañ ay pompe parfum yoo xamante ne boo ko defee ci sa bopp sa bopp day xeeñ neex te loolu lu ah, mat bàyyi xel xam nga xeeñ neex.